asalaamaaleykum mbokk yi ñu ngi leen di nuyu ku ci nekk sa tur ak sa sant ku dellusiwaat nañ beneen yoon comme ni ñu ko baaxoo defee chaque weekend fii nii waaw ñëwaat ci seen débat boobu noonu ñuy def chaque instant waaw euh, tey moom dañu ñëw xam nga pour tànn ay poñ yoo xamante ne ci lañ war a waxtaanee ñun ñëpp benn bi mooy xam nga transport bi ñu ko teewee gars yi ni ñuy manqué oto beneen bi tamit beneen thème bi ñu ngi waxtaanee si wàllu couvre-feu bi réaction population bi ak réaction euh, policiers yi waaw beneen bi tamit ñu ngi waxtaan ci maanaam président de la république du Sénégal ni mu recevoir opposition bi xam nga ku ci nekk waaw euh, sa taxawaay par rapport ak situation yenu na maanaam wala yenuwul maanaam waaw avant tout nag xam nga man damay ñëw indi sama xalaat par rapport ak euh, recevoir bi mu recevoir euh, opposition pour man loolu noonu lu baax la combat bi xam nga ñëpp ci war a dugal seen loxo parce que lii guerre la boo xamante ne booy xool ki ñuy geeral ñun mënuñu koo gis waaye pour man am na leneen loo xamante ne moo ëpp importance loolu xam nga dafa am ñoo xamante ne ñu ngi fii Sénégal muy moom commençant en commençant par le président de la République président assemblée nationale képp koo xamante ne yow yaa ngi ak sa caisse noire boobu noonu nga xam ne dañ la ko defal pour nga dimbali ci ku la neex pour nga def ci lu la neex kenn du ci laaj compte xam la ay caisse d'avance yooyu ñu doon wax ak ay kërëb kërëb jàppal bàyyi yow yi la ñu war a njëkk a génnee comprendre nga yooyu la ñu war a njëkk a génnee ku nekk comprendre yow même bu dee 60 pour cent si kees boobu noonu ngay génnee def ko ci xeex bi ba pare loolu mooy gën a sawarloo yenn gars yi pour ñu ñëw def mais ay ñëw waxtaan noonu recevoir la pale nga ñëw wax ni kërëb kërëb jàppal bàyyi xam nga recevoir kenn koo xamante ne spécialiste la si affaire boobu noonu amul benn professeur boo fi boo fi boo boo fi eh, boo fi kii amul médecin boo recevoir affaire yooyu noonu. baax na de baax na de. moom amul benn médecin bu mu recevoir peut-être da ngaa gisul médecin yu mais am na démb rek kii mu ngi koy wax nee na médecin yëpp recevoir na leen xam nga nee na carrément médecin laaj na leen lu ñu bëgg te lu ñu bëgg yëpp disposition même pas 24 heures mu indil leen ko comme am la parce que opposant bi Sénégal lañu bokk te Sénégal moo soxla Sénégal bu soxlaa nag xam la ñi nga xamante ne ñoo ñoo ñoo bëgg nànk yor ik réew mi yoon la mu woo leen waxtaan leen seen xalaat xam la loolu moo tax mu woo parce que bu ñu xoolee Sénégal bu doonee Sénégal ba léegi c'est la première fois Sénégal benn affaire bëgg benn affaire xam la loolu moo tax tamit xam nga mu recevoir te bu ñu recevoir ci benn affaire bi moom laa nanguwul muy lan recevoir na leen jeex na jeex na waruñoo taxaw chaque jour di ko di ko tegaat di ci waxaat di si débat xam la te tamit opposants yi surtout Sonko dafa wax wax ju am solo xam la dañ ñoo jox xaalis suñu xaalis na fexe ñëpp jot si te nu mu gën a gaaw gën a arrangé gars yi parce que gars yi liggéeyatuñu fii instant yi liggéey amatu da ngay xëy suba ba jan so soo xoolee 8 heures ba 22 heures li nga am amatoo ko ak kóoru fa bi léegi 19 heures du xam la kon maanaam lu nga doon am sa gañtee amatoo xam la kon gars nañu gaaw xam la jàppale gars yi xam ne gars yi soxla nañu. man yow déggoo li ma wax man déggoo li ma wax nee naa la loolu affaire bu nice la c'est normal mu éviter mu mu mu recevoir opposition bi recevoir ñëpp la war a recevoir parce que benn combat la am ñun ñëpp ñoo bokk gis nga amul opposition amul dara affaire bi sénégalais yi la laa la wax mais man maanaam loolu dafa am loo xamante ne moom moo ko jiitu comme lan na combat bi li ci ëpp importance xam nga mooy lan xam-xam la ak xaalis ñaar yooyu rek moo koy faj nekkul ay waxtaan yu guddal jël yooyu noonu débat chaque jour ñun débat moom ah ci lañ nekk chaque jour li war a développer àdduna bi yëpp laa la wax Sénégal wax nañ ko théoriquement def ko ci ay këyit dugal ko si tiroir yi appliqué laa ñun ay gestes yoo xamante dafa gaaw ñi nga xamante ne dañoo yor ay caisse noire yoo xamante ne dañ leen ko joxoon pour genre situation yi ñoo ëpp importance ñu génnee caisse noire yi laa lay wax loolu moo ëpp importance maanaam loolu moom mooy xabtal xam nga mais kuy digle sangaay day fekk yow nga sangu ba pare man foofu laay waxee mais waxuma warul recevoir opposition wala warul recevoir ñëpp la war a recevoir képp ku mën a recevoir koo xamante ne sa xalaat mën na si dem xam nga wala sa xam-xam mën na si dem wala sa alal mën na si dem comprendre la war na la recevoir waxtaan ak yow loolu kenn du ko weddi xam nga moom mooy lan yéen vous êtes d' ci le fait que ne Macky woo ñi nga ci wàllum nekkul damaa bañ d'accord si mu con mu def concertation avec les opposants loolu moom bañu ma ko comprendre nga mais le fait de de ak instant yi heure bi fi mu toll nii yow ñu dem ba nga xamante ne Sénégal am nañ ay cas communautaire hmm. isient déggum la président de la République di recevoir di recevoir presque chaque jour muy recevoir plus de dix personnes mais loolu noonu ñun xanaa xamoo président de la République moo nekk personne bi nga xamante ne moom la war a njëkk a lii lii ba mu demee ba dugg biir dugg biir Sénégal fi visite yi nga xamante ne moom la président di doon am même bi ci ministère yi sax da ko war a réduire da ko war a doon dafa war a doon loo xamante ne da ko war a wàññi sàkkamtuma laa instant yi fu ñu toll kenn xamul ko am kenn xamul ku feebar ak ku feebarul président di recevoir presque par jour muy recevoir plus de dix personnes non non mais am na yeneen instant yi nii technologie dafa développé boo demee si yenn pays seen seen seen seen yenn kii seen seen yenn réunion ministérielle yi sax laa lay waxal ni léegi defeetuñ ko noonu comprendre nga affaire par vidéo conférence mais fa lañ toll Macky Sall mën na di contacter ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk si opposant moom moo gën toog toog boobu noonu ñuy toog loolu instant yi nii c'est grave te c'est dangereux pour ki nga xamante ne moom moo nekk première personne bu ñu war a njëkk a man moom je pas d'accord ci le fait que mu leen mais la fekk que mu leen di andi pale benn par benn ku nekk di ñëw man loolu moom sama idée laa wax je pas d' accord du tout fa neex yàlla. li ci gis moom mooy mooy Macky Sall moom Macky Sall moom dañoo tàmmal benn mbir lépp loo gis lu nekk rek moom da ci politique moom moom moom moom moom mbir day am rek mbir mbir mbir na ñëw rek moom benn instant moom politique rek lañ ci xool waaw moom moo wóolu ci boppam benn instant ma damay jàpp ne ne lii nii mu organiser nii nii di recevoir opposants yi mu ngi recevoir opposants yi Sonko Idrissa Seck et cetera et cetera accord ñoom ñoom ñoo déclaré woon ne ñoom ci élection yi bañ élection ji jeexe ñun reconnaître ñu Macky Sall comme président ñu ñu jël ay benn kii benn benn cahier bu rëy dëxañ ci lépp ne ñii ñun reconnaître ñu Macky Sall waaw ñoom ñëpp ñu signé ko tey jii suba gannaaw suba ñu kii coronavirus ñoo am na ñoom ñoom ñëpp ñu dajale ñu ne ñoom dañuy soutenir kii Macky Sall ci kii affaire yooyu nag Macky Sall moom comme que noonu la mu ne ok d'accord c'est dinaa leen recevoir ba pare politique waale ci duraale sama yenn xeer wanati waale sama sama légitimité ba pare gars yi dañ ñëw fekk si ma. non bu ko jëlee si angle boobu. non c'est que je d'accord parce que xam nga instant yi nii. Mhm. fi ñu toll. fi ñu toll. Mhm. instant yi déggum lax wala day utiliser yenn yenn opposants yi ñun mhm. ñu foofu. d'accord comprendre nga actuellement l'heure est grave. comprendre nga instant yi président de la république gis nga li mu def nii. amul benn benn benn benn benn sénégalais boo xamante ne ni Ismaïla Dello doonul lu mu rafetlu comprendre nga instant yi fi ñu toll nii opposants yi bu ñu génnee woon seen loxo ci ay Sonko ay ñoom Idrissa Seck ñoom Khalifa Sall bu ñu génnee woon seen loxo ci combat bi ak fi mu toll nii nii nii sénégalais si jëm boppam ñoo leen njëkk a weddi instant yi dañ ciy bokk mu neex leen mu naqari leen dañuy soutenir le président de la république loolu la wax loolu la ñoom ñoom ñoom non déglu ma wax la non déglu ma wax la Macky Sall da ciy profité non déglu ma wax la déglu ma wax la ji am na am na leen loo xamante ne am na am na leen loo xamante ne am na leen loo xamante ne ils sont obligés ñoom ñoom dem ba mu ngi si participer sans nga dem gis ak Macky Sall nekk ci sensibiliser nit ñi d'accord nga yow soxla leen ay moyens ñu nekk ci sa bopp ndaxte ñëpp ñëpp ñëw ñëw ci kii bi ci palais bi ndaxte loolu day indi ay kii maanaam mën nañ di laalante contact am ne et te général Kara lan la def général Kara dafa ñëw du nuyu carrément et puis moom lu mu ko joxe noonu non fekkoon yow yaa ngi yaa ngi woote ne yow benn benn instant yow Macky Sall yow gars yi kenn warut a sa loxo affaire yooyu yow général Kara nuyu la yow nga jox ko loxo foo ko teg te yow yaa ngi yaa ngi bëgg a yow yaa ngi bëgg a sensibiliser da nga bëgg a sensibiliser ba pare bu saa nuyu la nga pare nga jox ko loxo tey jii nii man man Sénégal boo xamante ne moom mu nekk ci fin fond ci moom su disee affaire boobu danaan waaw man sama président moom mu ngi may wax ma def li ba pare tey sama président di ma di di nuyu kii kon am na am na leen loo xamante ne lu ci laxasu kon yow benn instant moom lu mu doxalee moom moom moo dul yoon di nga nit nit soo nit xool da ngay dëggu sooy dëggu da ngay dëgg jusqu'à la fin général Kara ba mu lu mu bon bon ñëw nga nga ne ko ah waa sëñ bi bande bëgg naa laa jox loxo mais tey jii nii léegi lii li moom moo wane léegi lii moo tax joxuma loxo et puis mu moom dina comprendre ne situation moom moo ko laaj mais tey jii mu ngi recevoir Sonko mu ngi recevoir nu mu tëdd les les yi mag ñi ñoom ñooy les ténors ba pare waroon na yem foofu man loolu laa d'accord waroon na mën a yem foofu mais yemul foofu noonu dafa recevoir recevoir ba instant bi ñu ngi wax naan sa ay ay forum justice justiciable ñoom dañ leen war recevoir ak conseil ba ay da day gis ne lii nii à la dem ba ci yàgg da ngay politique ci lax politique mooy ci laxasu à la fin ci laxasu boo yaakaaree ni affaire de politique moom moo siy rax da ngay nax sa bopp xam nga lan moo tax gis nga comme li nga wax ci affaire de général Kara bi man lan moo tax man je suis d'accord sur le sur le di recevoir ñi nga xamante ne ñoom ñooy opposants yi parce que li ñu interdit dafa bëri du joxante loxo bi kese xam nga dafa am distance boo xamante ne ni entre deux personnes yi nga xamante ni un mètre cinquante mais Macky Sall am na kenn koo xamante ne ni dugg na si palais bi te ñoom ñaar defante wuñu a defante donc amul benn candidat boo xamante ne Macky Sall recevoir na ko mu respecté li nga xamante ne ni ñoo la donc loolu yëpp moom laa lay wax loolu yëpp pour bañoon loolu noonu yëpp mu am essant déglu la leen benn solution la am parce que instant yi fi ñu toll nii ñun président de la république moom moo nekk comme sànq li ma la wax mooy première personne bi nga xamante ne moom la ñu war a njëkk a protéger parce que moom mooy le chef suprême comprendre nga ñun ñun suñu jëmm ñun suñu jëmm bopp ñun ñoo waroon njëkk a bañ loolu en tant que ñun ay ñun ñu nga xamante ne ñun ñoo nekk si dëkk bi ñun ñoo waroon di comme ni ñu koy defee di ko kaas parce que loolu le coup est déjà parti mais loolu noonu si jëm boppam loolu ku am ku am ku am gis-gis boo xamante ne ni bu baax la li nga xamante ne loolu doonul looy rafetlu parce que fi ñu toll nga ñëw chaque jour chaque jour ngay recevoir plus de ay 15 personnes chaque jour plus de ay 15 personnes dem ñi nga xamante te xamoo ko am li ngeen di wax noonu yëpp ce sont des détails dañu ñuy tàrreel bu opposant yeeg président bi ñooñu ñëpp dañuy tàrreel coronavirus moo ñu jiteel quoi ay opposant président wala neexee ñu accolade maintenant ñu sénégalais yi ku nekk sa naf sa bakkan yaa ko moom yaay sa premier protecteur c'est toi-même ñu ñoo jël suñu responsabilité ok président bi ñëw na war a joxe la bon exemple defu ko c'est lui le premier responsable du pays n'a pas donné la bon exemple ok ñun soyons no nos propres responsables c'est simple léegi tu as besoin de ñu tettalo ne la fii nga li ngay def li ngay def pour nga dund yow pardon Euh, mais Papis ñun lu ñuy wax. non defal naa par exemple non non. day euh, la bon exemple. gis nga dañ ne la comprendre am na ñoo xamante ne ni président de la république idole la dañ koy suivre comprendre am na ñoo xamante ne raxas loxo yi sax li ñuy wax raxas loxo yi xam kañ lañ ko gëm ba Macky Sall defee ko comprendre yow couvre-feu bi ñu ne ñu ne Macky Sall 20h à partir de 20h kenn dootul génn kan moo kan moo sañ a jël décision boobu noonu n'est-ce pas c'est le président de la République donc am na suñuy débat dañuy débat instant si loolu la waxtaan nag juste nous sommes d'accord sur ça wala nous nous ne sommes pas d'accord sur ça. voilà man léegi man xam naa xam ma laa ma xam xam fa ma xam man dama nangu mu recevoir gars yi xam nga mu recevoir politiciens xam nga parce que déglu la parce que parce que da ngeen jamono joo ne Sénégal dañoo toll jamono joo ne chaque jour politique politique politique ba mu leen mhm. que dañoo wan ni Sénégal yi mën nañu ànd doon benn mhm. loolu moo taxoon parce que woo téléphone bi après xam la après dañuy naan est que moom la wala du moom xam nga ba ba am yeggal mais instant yi nii leer nañu ni recevoir na képp kuy opposant recevoir na la. xam nga léegi xam la léegi xam la problème. léegi xam la problème. waaw kañ léegi nag foofu la mu continuer même parce que instant Sénégal ñoo soxla woon loolu Sénégal ñun ñun ñun Sénégalais soxla woon xam politiciens yëpp ànd pour xeex benn affaire dañoo yàgg ut lool. mosu ñu léegi yow Moussa loolu si président recevoir leen kese kese kese kese lañ bëgg loolu sax amee yow yow mais yow yow sànq sànq da nga wax lu am importance am lu élage élage donc ñoom dañ koy soutenir rek ay rek moom mooy et moom dafa wax ba pare moom moom moom Macky muy def def la ko pare moom mu ne lii couvre-feu bi moom déclare na ko def na kii mu te cinquante yoo xamante moom def na loolu ba pare après mu woowaat opposition pour mu ñëw loolu yow balaa nga def loolu kay da leen woo ba pare mais nga woo def ba opposition bi Sonko nee na ko carrément nga génne doyul tax na mu loolu idée mais mais mais mais mais pour loolu la. mais mais mais xam nga loolu loolu moo tax ñu ne dafa jël décision ba pare. waaw dafa jël décision ba pare. waaw na un mille génnee na mille milliards. waaw bu mu génnee mille milliards. xam nga mu xaw a situé. lii lii laa koy def woo opposant bi woo opposant yi ngir. ku nekk mu wax si comme par exemple. mesures yi nga xamante ne jël na ko. si ay déggulum la yooyu yooyu yooyu yooyu yow ànd nga si wala ànd si. mais yow boo amee proposition booy def. da nga koy proposer rek loolu. mais noonu la demee même même même boo ko proposé. même boo ko proposé mais bu ko woo loolu est ce que foofu dina proposé lool. bu ko woo lool. waaw loolu la mën nañu ko def à distance loolu laa la wax. non mën na ko woo appel vidéo man la laa la laa d' accord man dafa fekk ni bu leen recevoir. voilà foofu la ñuy waxee. Cheikh Modou Kara da ko jox loxo Cheikh ñëpp presse candidat yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk nekkoon foofu yëpp candidat yi nga xamante ne ñoom ñoo nekkoon foofu yëpp amul kenn kenn kenn koo xamante ne Macky Sall respecté na li nga xamante ne ne moom lañ mesure moom lañ teg moom candidat yëpp yëpp foofu laay waxee mais man damay wax si ñaari affaire rek noonu la rek ma affaire bi ñun lépp lu am ñun dañ ci war a jàngat quoi dañ ci war a jël leçon yow wax nga lu même importance wax nga ne opposition bi ñoom bi waa ji bi ñu ko élire présidentielle yi dañ taxaw ne reconnaître ñu ko comme comme comme comme président bind seen livre ñoom ñëpp ñu signé xam nga tey ñu ngi ko wane nañ ne reconnaître nañ ko xam nga comme président de la république comprendre nga yow tamit wax nga lu am importance loo xamante ne lu gars yi war a jàppale quoi recevoir yow déjà ngay tere benn affaire ba pare nga jiitu ci yow en tant président de la république xam nga tere dajaloo tere contact affaire yooyu yow nga ñëw ñu maanaam ñun loolu lañ ci war a jàng ñun comprendre nga mooy li ma mooy li ma wax léegi-léegi ne yow wax nga lu am importance tey jii nii lii nii xam nga comme li nga doon wax léegi-léegi mënoon nañ ko def ay appel vidéo mënoon nañ ko def kii mais tamit nga doon wax ne président dafa dafa politiser affaire bi man moom dama koy wax leer quoi politicien bu politiser dara wàcc na parce que loolu mooy métier am quoi xam nga muy muy muy parti au pouvoir xam nga muy opposant ñoom seen rôle mooy opportunité bu ñu am pour politiser benn affaire dañ koy def parce ñoom ay politiciens lañ leen tuddee quoi seen métier mooy def def politique xam kon lépp loo mën a yokk xar bi karoo rek dañ koy def xam mais itam wane nañ ñun wane nañ ñun xam nga dañu am askan boo xamante ne sénégalais yi si boppam ñëpp laay wax parce que muy parti au pouvoir muy opposition ñoom ñëpp ci population bi lañ jógee comprendre nga. bëriwul ñi nga xamante ne dañuy wax lu ñu gëm xam nga li ma la gëmuñu bëriwuñu tamit ñoo xamante ne comprendre benn kàddu la ñu am.